dale nag jàmm mbokk yi li gën a fës si këru ëtt yëglekaay yi am sonko indil sonko Walf Quotidien moom la xëyee de sonko mi ngi waajal xare bu rëy cey 2024 ay ndombal tànk yu bees ci biir partiam am nguuda mbub le seen nañ ko fa de ah vox populi tamit dikk na ci mi seddale ay carte kan Sonko Sonko mi ngi seddale carte gaayam yi ah Pastef la dépêche desul ginnaaw de Sonko mi ngi daaj daaj ay mbiram deux mille cay 2024 hay démb assemblée toj na de rajax kurama ki moo fa jaar ah saagu pistolet la fa indi de saagu lan pistolet gën saak américain moo ko wax gën saak maam jaara faam desul ginnaaw de concurrence ba ah maam jaara faam poudre bu saf ak blanc bu neex cey ba léegi assemblée nationale Sud Quotidien ah dikk na mbir yaa ngi doog tàmbali nag dana metti de marathon budgétaire projet de loi décembre bi cey suñu assemblée gi ba léegi soxna Diagne moom bàyyi na démissionné na Mimi Touré moom tamit démissionné na groupe parlementaire benn bokk yaakaar ha njit ba pap Amadou Diop moom moom de mi ngi xam ne ci le soleil askan bi ñu ngi leen di déglu ñu leen di bàyyi xel kon assemblée am nañ liggéey. dañuy jëli avion uti enquête enquête mi ngi ñuy xamal ne danger dans le ciel dem ak dikk bi ci jaww ji nar naa tànga de moo fa ci jéer gi tamit ndar naa métti de ah luy loolu tempête en vue sur le transport 24 heures moom la xëyee IRS IRS moo juddu ah benn bànqaas de benn kuréel bu ëmb syndicat transporteur routier ah réew mi nar naa tàng de dem ak dikk bi jaww jeeg ak si suuf si nar naa bloqué ñu dell ca Pastef ci les échos ndongo Diop ndaw Pastef la de moom de ci nen la toog instruction la nar a jëm de ah ndax a président procureur bàyyiwul kenn bàyyiwul benn kilifa daanaka du samay wax de les échos tendance nouvelle génération xale ibaadu xale muuru xale tiktok xale sexy bés bi tey moom la xëyee de ah ndaw ñi mariage précoce victime violence agression hay seen dund métti na de ci loole yéen lan mooy seen préféré xale tiktok wala xale ibaadu maa ngi kataar dugg naa Qatar douzième gaynde ah douzième gaynde am nañ quatre-vingts places ale Casa am na quarante places ci joolaay record record mi ñëw si derbi PSG OM Bamba Dieng ak Pape Gueye ah mission par au parquet des presses tey dara du yomb de derby marseillais parisien ha ñu dugg ci ballon d'or ba Sadio Mané am na ay concurrence de Benzema nag moo ci gën a ràññeeku ma dugg ci làmb ja Papa Sow du mësa daan Siteu ci kaw du samay kàddu de Fadam 2 moo ko xamle ci sunu làmb ñu joxe dig daje ba beneen